gàllankoor Karim pourquoi moi j'ai été je suis lii dëgg mooy man man maa wax samay avocat seetal leen ma candidat yëpp mais ça de la politique du bañ Karim du euh, bañ jomaay wala euh, beneen candidat bu mënti nekk Serigne Boub ou Boubacar Camara j'ai demandé dañ ma defal dañ ma xoolal candidat yëpp biñ ma ko xoolalee Euh, pour le cas de Karim Wade j'ai vu que kii mi ngi ci doon wax d'ailleurs Thierno Alassane Sall donc ça c'était pas nécessaire pour moi ma gis le cas de Diomaye et de Cheikh Cheikh Tidiane Dièye là j'ai fait faire des recours c'est moi-même qui ai demandé à mon avocat de faire des recours et l'avocat a fait des recours à mon nom mais pour tous les autres j'ai pas fait de recours donc il y a pas de problème et malheureusement Pour le recours concernant Diomaye, j'ai été débouté. Bon, ça c'est une décision souveraine de justice man amatuma ci commentaire biñ bi conseil constitutionnel joxe àtteem la génn ci dossier bo mais je pensais j'ai pensé que waruñu woon euh, bokk parce que faut pas oublier que le décret, le décret qui a dissous le PASTEF man maa ko consigné en tant que premier ministre donc je devais être logique et conséquent avec euh, avec avec, avec moi-même maintenant pour tout le reste maintenant c'est de c'est de la fabulation. Élimination Karim, vous n'avez rien à voir avec ça. Mais, mais euh, de vin dont on parle, vous n'avez rien à voir avec ça. Les pots de vin, faut que faut koo koy jox foo koy joxe ak pour quel résultat pour nañu éliminer Karim non Karim potentiellement maa on peut faire alliance bu bu nekkoon euh, candidat serait deuxième ou premier ou troisième ou cinquième man je serai j'aurai mon rang et puis peut-être après on va se retrouver et nous partageons et c'est franc et c'est profond nous partageons euh, beaucoup de, de choses hein. Malheureusement bon il y ce malentendu toujours qui continue euh, de de de, persister mais xëy na bés dina ñëw fi feeñ. mais est-ce qu'avec ce malentendu yaakaar nga ne. mun nga jot toujours ci soutien wu euh, Parti démocratique sénégalais ndax kat nee nañu euh, le dernier mot revient à maître Abdoulaye Wade dinañu joxe li nga xam ne moom mooy seen position. mais euh, bon je pense que aujourd'hui fi réew mi toll euh, li ñu gën soxla mooy à mon avis une alliance globalement. pour préserver la République pour sauver la République jàpp na ne loolu la ñu gën a soxla au-delà des problèmes crypto-personnels parce que état dafay toll foo xam ni du yëfu nit du yëfu Massamba yëfu Mademba yëfu Amadou Ba wala yëfu Karim wala yëfu Maymouna c'est c'est jàpp naa ni c'est pas c'est pas ça lii dëgg dina ma sa feeñ ça vivement que mu feeñ en tout cas moi je veux vraiment que mu feeñ maintenant je pense que ñu nekk PDS effectivement on partage des valeurs et il est bon il est tout à fait normal on se connaît très bien que ñu am pas ay soutien moi je je ne wax sax waxi soutien moi je parle d'une alliance d'un globalement parce que réew mi foofu foofu la toll réew mi aujourd'hui il faut des consensus forts au niveau du pays ñu ñi war a ànd ànd ñi mën a ànd ànd pour fexe ba gën a sàmm réew mi gën a aar réew mi et je pense que man ci loolu laa woo en tout cas tous les acteurs politiques euh, ñi nga xam ni gëm nañu état gëm nañu démocratie et naturellement le PDS en fait partie. alors dañuy wax souvent naan ah, euh, en cas de deuxième tour PDS euh, Rewmi Khalifa il y en a qui vont même jusqu'à parler de de de pacte républicain que ñooñu ñëpp mun nañ leen mën nañ laa fekk si. Eh, da nga leen di tàllal loxo maa ngi gis yaa ngi tooñ Idrissa naan eh, moom xam na ne vous êtes le meilleur candidat. mais non euh, en fait bi ma demee Thiès léegi damay parce que xam nga fii euh, campagne électorale on a tendance à di ko dramatiser or avant tout ay doomu Sénégal la ñu aucun mal ay ñaari cortège daje croisé sans problème j'ai rencontré le cortège de Khalifa Sall l'autre jour dama wàcc ñëw nuyu si ko. et c'est comme ça que ça doit se passer du bu ñu dajee tout de suite ay sànnante xeer bon dem dem naa Thiès euh, ku wax quand même euh, euh promenade de Thiès waa tu penses à Idriss Seck a été maire de Thiès am na lu mu def foofu donc je l'ai salué en tant qu'ancien maire de Thiès euh, je sais qu'il est candidat ce que j'ai dit j'ai dit aussi que man maa ko gën a jekku mais ça c'est dans le cadre de la campagne électorale Euh, je pense que Idriss Seck c'est un patriote c'est un républicain rien n'exclut demain que ñu ànd liggéey pour l'intérêt du Sénégal. y' a comme problème moom Khalifa Sall. mais moom Khalifa Sall ak ñëpp. Euh, yaa ngi talal même loxo bi ñi nga xam ne yenn a bokkoon camp Mohamed Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao Ali Ngouille Ndiaye. ñooñu ñëpp leen talal loxo parce que ñu ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp Ali Ngouille Ndiaye y' pas de raison que ñu bañ a Euh, Mame Boye Diao il y a pas de raison que ñu bañ a ànd Boun Abdallah Dionne a pas de raison que ñu bañ a ànd et je pense je pense et c'est objectif war nañu ñëw ñu ànd dès à présent man loolu laa gëm